sama bagage yu xees ya jógee Afrique dikk nañ sama bagage yu xees ya jógee Afrique dikk nañ lay lay la laa lay lay la laa wala naa dee bagage yi fañ diis gi yoon diis go xane laay lay la laa ëpp ñaar fukki kilo wala dee bagage ya dikk nañ maa ngi def si vidéo ngeen jënd laay lay la laa te ni ngeen di julli gi wéy na waaye da ngeen jënd Where did I come? But fañ you wér this. Where the hell caméra I allo allo suma bagage yi jógee Afrique yung ñëw ubbi si nag xaw ma fu ma I'm so excited guys whoop in the camera I have my parcel from Africa guys come on buy your dresses kaay and jënd so excited. This parcel is late. It was meant to be here for 8, but it's late. Xool na xag si balaa ñuy julli waaye fa tardé waaye ba tey it na julli tabaski gaa ngi ñëw. There is another Eid coming soon in two months, so all good still. And some people buy dresses, Eid or not. Summertime now, dikk leen jënd yére sama bi ñëw na <laughs> yére yu nice la yére yu nice You have your yoo and then xam na ay mbeseñ tamit oh my god I cannot wait to open them guys it has so many nice clothes so many nice stuff some are mine and some are for sale fa tardé xoon ba ma tiit foog ne duma ko jot waaye ma ne di jàpp ci yàlla rek waaye gisoo xàcc na so excited. It was so late that I thought I was not going to get it. But I got it. How you guys doing? Welcome to this Wolof and English vlog slash opening my package from back home. vidéo bi ma koy def si suma beneen YouTube channel bi nga xam ne boobu du ma fa defati ay video yi xolof suma bi YouTube channel bu njëkk bi moo tax may waxaale àngale si video, bi su ngeen gisee may wax àngale pour gars yi xam ne may wax waaye euh, defatuma fa léegi ay vidéo ci euh, xaseetuma fa yëpp léegi vidéo xolof yi fii laa koy def yeneen vidéo yi ma def ko foofa ma bëggee def vidéo soose wala àngale ma def ko foofa mooy Amie Jobe YouTube channel boo Amie Jobe rajo su ma paree sax su ma fàttalikoo naa comment si vidéo bi pour boobu noonu dinaa ko dinaa use account boobu ma comment fii pour su ngeen buggee um, seet suma foofu noonu tamit am na ko ay vidéo xolof yi yàgg yu fa nekk waaye vidéo yi xees yi yëpp fii lay ñëw man sax maa sant yàlla ma xibbee ko ci wet gii di ci ci gémmiñ gi ci bunt bi di te xamoo ne fii la bunt bi féete parce que niñ ko lëmasee doo xam fa bunt bi féete maa xam saas rek I I just guess I didn't know whether this was the, the, the top of the, the bag, like where the zip is. I didn't know when I was opening it because they wrap it in a way that you wouldn't know. But it's a good guess. Yes! Look at my stuff, guys. They're here. One bag, two bag, three bags. Oh my god. Three bags. <gasps> so heavy is the message. The message is so heavy. I'm gonna try some of them for you guys to see. Oh my god, fañ diis dafa am ay mbeseñ yu si you. ak xam yeneen yére xaaral ma génne ko yëpp sax soo pare sax ko teet bi ñetti pocket la xam ma ñetti mbuus yu rëy ñeent sax laa illa bagaas yi is four of them even oh my god so excited. I can't wait. It's a lot of stuff. This cost me a lot of money, guys, to get this here. It's not even cheap. But I'm excited. Oh my God, I'm very excited. Wow. These are the tubes. Tube yeneni. Oh my God. Let me use the gel before I continue touching this. I sprayed it, but still. Let me still just use the gel. Because um, this parcel is being handled all the way from Africa. The ones inside, they're fine. Because they just from my cousin who packaged who um pack it and hand it over to them but yeah the fact that they have to handle it all the way to here it's better to gel my hands and you know i put cream on my body but it's like i've not creamed my body because the the whole all the cream just sink in my body like diw naa waaye diw bi dafay suma yaram bi daf ko How many do? mel ni diwuma waaye jël bi laa doon def rek ndax mu gën a xóor bala maa ne di laal yére yi oh my god guys so awesome oh dropping one this is so nice and cute it's like a mini dagget oh my god you wear it and then this is the musor the head tie and this is the malan the wrapper they on fashion people from my country they knows about this so yi mooy cuub yu ndaw yi mbubbi bi ak malaan gi I mean du cuub yu ndaw but I mean like mbubb bi dafa mel ni comme dagit type of a ñaw ku nekk lay xem nag waaw ñëwkat bi nu mu ko ñëwee daf ko def mu ku nekk lay xem ñawkat bi ñaw rek la moom suma jarbaat mooy jabaram mooy seet suma jarbaat même let me see. dog ko rek benn yoon soo cuub yi nii ñeent laa si am waaye dama ko waxoon ne different ñaw ya. xaaral ma seet bii nu just so excited guys alright bii bii malaan gi and then big move la waaw big move la kay alright big move moom li fi nekk la waaye dafa ak belt nice very nice dafa mel ni mini garambu bu nii ànd ak belt very nice alright cuub yi xam nga dañ xew jaxase ko ak ak mbeseen bu baxa bu bi nii dafa nice a bugg a dee so bii nii tamit alright so bii nii te te mbeseen yi dañ xuute mbese yi yu blue yi different design la it's not just the same design design bi dafa wuteek design bële ak wuteek design bi so bii nii tamit naka la bii nii tamit mbubu bi bii nii mbubu bi mooy grand mbubu bi cub bi mooy grand mbubu bi very nice waaw wow. waxoon naa ko ne bii na ko def grand bu simple nii rek te def ko tëj ba fii soo ku nekk lay xem boo xamee yaram daf lay xem grand bu ndaw la nii bu gàtt nii simple ñëw ba sa xóom yu nii you know ñëw ba sa boori xóom yu nii andeen malaan bi very nice oh my god bii de soo du sax duma ko jaay ma koy sol bii num nice cuub yi num nice Tarot Women Warrior ñoo ma ko jaay cuub yu original yu baax yi la it's not yu bon yi marché bi nga xam ne danga ko yëpp génn so mooy cuub yi nden yeneen yi nga xam ne mbeseñ la bii tamit mu ngi fa bii xawma la bii tamit buub bi buub bi mooy malaan bi mooy cuub bi ñeent la yaa ngi nii mbese yi I cannot wait mbese yi dañ nekk ay grand bubu. different kind grand bubu. yi lay lay li laa set tet tet tet tet gis ngeen couleur yi bi ak bi ak bi non moy ñew yi nga xam ne machine bi su ko solee day ñëw ba dënd bi ni baat bi baat bi dafa ndaw ñu ba si dënd bi nii après ci gëna xamé bouton nga tëj ko ak bouton bi set tet tet tet tet tet lii yëpp soo ko waree ubbi fii la ñuy fanaan parce que bénn bu nekk pour nga lém ko problème la soo dafa am malaan ak musóor boobu noonu nen yii nag xaw ma ko jëli neexut a xibbi yii laay xibbi and ma ñëw baye xam na ñaarim ñaari déedéet ñi def na yenen yenen juroom kay waaw juróom different façon ñu mbeseñ laa xam different different waaye suwaay yi nag laa di worse? si laay lay li daa suwaay yi taxaw leen su ma defee vidéo boo xam ne jaay vidéo try on danaa ko post su ma defee vidéo boo may try on yére yi comme ça ma koy natt daal post vidéo bi ngeen gis ko yéen ñu bugg a jënd pour tabaski gis nga lii suwaa bu diis bu ser bu baax bi la gis nga ñaw yii ay lay li gis ngeen yow yi suwa bu dis bu ser bu bax bi la gis ngeen baat bi jam yi xew xees la xam naan jam sax per yi xew xees gis ngeen li set gis ngeen di different kolalasi la si xam moo tax mu suwa bi dafa dis te quality li boko xame xamee téeméeri xam nga koy sol du def dara gis nga ñew bi mooy ñëw yoonu bu ko sulé da fay nii nga guddu ba ci souf nak te jotta nice no like na yiri da ci am yo xane duñ duy benen fils bu xoyal ci la xam nga ci la wa bi ci la ah no yiri rek suñ ko jeexee na yep ay ñaw yu jot la ñaw yu jot xam nga léegi dafa xew man mom yëre yu jot daf man neex anyway no ko len bi rek taf bu rafet bu def no suma kat bi rek te style boko jox non la koy exactly te gis ngeen ko te ñew yi ci buri ben ben rek la nak su duut yeb sax ben ben la xamut ñaarel gis nga bi dafa jóg dalé ci kaw ni wacc ba si am ben line bo xane ni all the way lifin bi la fa def taf bi so so sale grand bi ni lay def taf bi wacc ba si suuf fi seet tet tet tet tet bii mu bii bii waat naa ko jaay sax non yére yi nice nañ xool leen yeneen kola yi yëpp rek hmm? xool leen yi yëpp rek ba pare lifin bi different color bii tam beneen piis bu xoyat la xam nga piis bu xoyat yi day xew léegi soo ko solee ba mu sóoru su la neexee bul mu sóoru sax waaye daf dee nice nga sol sa taayis rek sol ko gis nga ko bii dafa wàcc ba staf bi dafa wàcc ba si ron nga ko koy sol mooy loxo xew léegi nga xam ne koy sol mu dang nii ha so nice these things are so beautiful and they all handmade but they're so nice I mean that local tailors made them but they're so nice and original oh my god guys I love them all but I have to sell them I'm, I, I don't know how I'm gonna sell them but gis nga bii beneen bu ñuul la boo xam ne dañ ko per nga per yu nice yi mu xam per yi dañ ko yële Oh my god. And then bibu bulu blue Oh my god. Comme boy bu xoolee bu ma leen doon won de waaye bu blue moom. Bii moom suma bos la suma borode bi la. Bii suma borode la bu Oh my god. bibu udah dafa jar already. bu góor bi yii jam bi la soit jam bi ñaar rek a si si jam ñaar rek des parce que ba leen la jël nañ ko te ñaar yi man benn bi sax dama ne woon dama koy jël de <laughs> waaye su ma gisee kuy jë kuy jënd rek danaa ko jaay xam nga rek jaaykat waaye suwaa buñ bi dafa xew léegi diis yu quality la yi nga xam ne xool leen rek ana waa UDP yi waa UDP yi grand bu boo fële suwaa grand bu ay ayonin nit le nag because of all this and in packaging but new soie is very heavy and thick guys oh my god soie bi dafa diis the quality New jam ko jam nice beach. oh my god let me see if the camera can focus guys ale ñuy soie jële gis ngeen couleur bi no couleur bi is everything si nit ku oh my god so couleur boobu la and then benen bi bibu weh la swabi the same swabi bu weex so nice color design here. pink golden golden color ak pink so nice oh my god and then this one is everything li red swabi la mu xam dahume bu xonq si baat bi dahume bu orange ak purple ak white oh my god this one is even everything this red one oh my god yëre you are nice Oh my god, no, Yerida is so nice. Dan yang buka soliep mas mau bawa pesah mana buka soliep wah angkat mau kumun bayar kok menjai dah kerja mau kerja nak kerja. So lu lah, amna ini kalau nih. Wah, jarum aja ini ya. So ini kalau ini destiny tam ayam besen lah, am stuff like this. And more of the swamp, swaye, ini pisi hoya bi. Because swaye pisi hoya bi, 15 lah si am, ikut dulu. So amna ini ni nak sih. ba am na yeneen yu nekk fii yoo xam ne mbeseñ la lay li laa mbeseñ di bokkul bii mbeseñ yi different color laa si xam grand bu mbeseñ yi soo contact leen ma si caméra bi tam ba pare bëgguma vidéo bi gudd boobu gis la xool leen color bu bii rek papul bii rek grand la ak malaana musóor soo ya contact leen dinaa def um, suma fóon na ma bi dee bëgguma koo def si vidéo yi waaye su may boobu ma def ko fa rek parce que damay jaay léegi yee dinaa pare suma phone number bi right now hopefully yeah it's better ma def ko fa right now I'm thinking suma phone number commencé naa di ko def si si si si si si si vidéo yi pour jaay waaye dama dee ragal nag xam naa fi may mujjee rek mooy damay wut wut beneen number boo xam ne boobu laay use every day pour man personnel and then ma xam number bu may jaayee tamit waaye xam nga loolu a xam parce que njaay a jël sérieux di ko def si vidéo yi so su ma number xam leen ne jaay rek moo tax ma di ko fa def so please xam naa ne xam na yéen ñoo xam ne da ngeen ma like you know and stuff I don't mind ngeen yónnee ma message nii you know nuyu ma su ma amee time ma leen waaye su ngeen can di call correct, you know for the for the sake of calling you know so yeneen góor yi moom dañ you call something, yeah. so bëgguma again my correct, you know and stuff di jéem a ci saka you know it's complicated because bëgguma nekk one knows wax I saka su ngeen nekkee suma fans you know and it's just I don't want you to feel bad or anything you see it's it's a bit complicated but yeah yàlla baax na yëpp Now for the number su ma loxo bi dee dafa dog ni lu ko dog xaw ma na këyit yee ko dog te yëguma ko faam tuuti dog bu ndaw so yeah guys yére yaa ngi nii soo nice and dama nekk so excited dama ko bëggoon a sax si vidéo bi waaye jaru ko because vidéo bi bëgguma nekk di ko edit dama koy post nii rek xam naa ne but we'll see dinaa ko edit because vidéo bi gudd du waa minutes now so dinaa ko edit so dinaa seet ndax mun naa natt si yére yi si benn benn o ñaar si yére yi and then ma won leen ko ya dinaa def loolu noonu maa ngi ñëwaat ok ba <laughs> Bye. So I'm gonna try one of the dresses and I'll come back. Hi guys. This is how the clothes look like. This is one of the styles for this particular one. It's just a lot of different styles guys. But bini, nii loxo bi fii moo tuuti bii pour ku selem la bii mo ci bu mag bi suma bos ñaar rek la façon bii loxo bi fii fa tuuti soo dee selem dana la xem boo dugee ko xem ni man nag loxo bi fii mooy dang xanaa nga yóbbu ko ci ñawkat mu yokkal la ko xam na piis fii lu ñuy mën a yokk bu dul loolu boo ko solee fii fay dang gi nga bii nu ma xemee kepp ba mënumaa ulbatiku loxo bi dafa xem kepp fii yow sa bos fay dang mooy problème bi léegi laa ko doon try sax dugal suma loxo bi nii soluma ko yi dama dugal loxo bi nii seet rek ma gis ne dafa dang parce que boobu laa bëggoon a try sax moo tax ma daaj bi try ko ñaw yu nice and nice and nice la mbés yooyu yëpp yooyu yëpp lifin bi la ah soit bu soit bu xew xees bu diis bi la yëpp gis ko mooy ñaw bii ñaw yu xew xees yi soit bu xew xees bu diis bi la soit bu diis a diis bu baax bi ñaw yi nag ñaar rek la si ñaari ñuul benn bi silva la baat bi per ñu per ko benn bi ni mooy baat bi ma sol nii ok soo yooyu noonu mooy yii nii and then nga xam yii nii yi dañ ko jam waye yi ñet la way benn bi jël nañ ko ba paré bala mu ñëw sa lañ ko jël ñaar yi si def yi nu ñay sé baat bi fi li li li papul la li white and then fi orange and then soie bi jofam dafa nek red color red color bu nice and nice and nice boobu noonu and then mu am benen bu yellow yellow bi pour UDP la UDP <laughs> ko alla yellow fele it's just one of the yellow yellow yellow wall is just killing ñi yellow ñi ñaata ñaameng baga so les yata fam wala yatina aron puta demanding ay ay ayon ne need sambi sam sai sai ne baga so puta ba folo sambi this is grambuba it's not like this it's just normal grambuba so abe momo kunna moye jan nyaw jamle very very nice and smooth and beautiful jam ha so um, wo fulol wol mu jammole ti ñindo ani ñindo so ñinu fana mu um, suwaleti ñin fana abe mo mole kunna because ñun la bulo do mandin dorone be funtula jambare ala bulo aman do yakumi wo wo fimma do ɗum ɓe so ñin abe mo mole kunna ala juube don ñin beautiful blue ñin beautiful royal blue ñin mo ya mo ya per mole ñin perol le kije ñin saraxule muso min ka dada in gambia aya dada nole very nice is not people in gambia is not many people that know how to make this morkatale fo senegal ka dada je ñi garambubo balem ñinu mbeyemam fano soto ti ko ani garambubo dronen itele bela fansu uh, tais dunna biko a jamfatale baake ni ketam mo sutugoti fo ya tala dumandin fan barinetere ittinte ñowole a jampatale perfect ni ha hel dow perfect alina kono juuɓe wan kakunte <laughs> eh, ñin kono ba kana danko so eh, it's and then ñinu and then mbeseñol bi je garambugo mbeseñol i don't know mu ne at ne memma ne xamoo foo kan baalal leen ma dama bugg a ah, suma customer soosay tamit dégg so bi so itu sax maa koy sol ah dafa rafet torop torop torop torop torop te bi tam ben rek la si yep benn ben rek ben yi si am ñaar sax hude, de yi si am ñaari couleur te bu si am ñaari couleur tam ñaari façon ngi ñëw lay dama ko def mu unique ndax bu bu nek lo loo xam ne soo Yep, solee ñëpp dañ koy sol nuróole ak yow gis nga bii nu mel bii dafa rafet grand bu la ñu ñu lifin ko jam ko xaw jam xaw ma ñu def ci taf bi ba si ron ba dem ba sëppee ci souf taf bu orange bu rafet rafet rafet te grand bu dafa ñëw caméra bi motax tax xam na naa ko mën mu focus caméra motax du ngeen ko mëna gis waaye lifin bu rafet rafet rafet la am gis nga ko grand bu bi rek la again ñom ñepp bu nekk grand bu la rek yépp yépp yëpp grand bu la rek xamuñ ben manana muso. mbese ñi ñu xam manana muso so xamna ci yenen yeneen fale yii comme ça bi ni bi tamit grand boobu la ñu def perte dënd bi hmm and then yu goori mom ñett rek la ta benn bi sax dafa am ko tiyé so yu goori yi bëriwut so yeneen grand boobu yi moy yi grand boobu mbeseñ yi grand yu ser yu nice yi grand boobu ak malana ak musóor yooyu xam si lu mat ñeneent gisoo bi bi dafa ay bouton ci gannaaw fi si kanam dafay ñëw ba sa baat bi nii mooy garang bi xew xees you know baat bu xem na ni round dafay ñëw ba si kaw nii boo ko sole def nii si kaw baat bi dafay ñëw ba si kaw nii naay sa bugga dee nga musóoru dafa xam malaan ak musóor mhm. soo xam naa tamit cuub yi cuub yi ne xam ne dafa ànd ak malaan ak musóor mooy yii yooyu noonu ñeent rek la te benn bi sax day dañ ko jënd already so yeah bii garamb bu brown la bi gram bu purple malana muso ak gram bu pink ak gram bu xonk malana muso yeb gram bu beseñ malana muso bi mom xartum la bi mom suma boss la waye musu ko bëgg mën na ko jaay waye man la ko suma cousin bi may ko dama bari le sax yéne dama bari le sax amel ciou mota so i don't know euh and bi ni benen beseñ la tamit xaw ma beneen suwaa la tamit bu weex xaw ma nag ndax grand boobu la daay jumb ko waaye yéen ku bugg rek dama contact namba baa ngi noonu waaye xaw ma nag ndax bii grand boobu la wala ndax loxo yi nii la mel xaw ma daay jéeg ko waaye gis ngeen baat bi mu rafetee per yu pink moo fa nekk ak per yu euh, góor ñaw yëpp dañ naay sa naay sa naay sa naay sa bii beneen bu bulu la beneen piis boo xoyof bu bulu bu am ay taf nga ko nam nga baat bi dafa lemu mota waye baat bi ni la yeb baat bu round ni rek ñu taf ko mu wacc ni ba fi taf ko mu def ni ñu ngi yeb dañ nay fa anden bi fer la per yu bëriwuñ de su ngeen gaawut oda per yu bëriwuñ per yu ni bari bëriwuñ nga bi fer la ñu fer ko dañ bi yeb oh my god yeneen ñaari green yi de so beautiful green green bu am fer bi is everything oh my god bi bëgguma koo jaay sax ak benen green bi oh my god bi mo dafa nek so simple and beautiful tuh rek la xam si dënn fi green bu light olive green bu nice and nice and nice so you know moy yére guys bi moom suma bos la bi suma bos la tamit um, bi moom brodé la rek man mako ñew dama dama like sea green so dama bëggoon ham xam sea green brodé loxo yi dafay mel ni bu ma sol nii rek yi na soo ko solee dafay dang fii comme style ma sol nii rek waaye bu xam malaan a bu gàttal noonu la soo yeegaay yére yi ñoo nekk nii andeen xam naa yeneen robb yi nii ana musa robb yi dañ nekk soo nice san cute xam nga beneen mbeseen bu des bi anam ngi nii xam nga mbese yi day xew grand boobu la day nekk waaye loxo yi dafay génn fii loxo yi dafay génn fii mel ni xala mel ni loxo yu marinière xamoo loxo yi fii waaye fekk grand boobu la bii tam dafa am malaan ak musóor gudd ba si suuf sëppee rafet te simple te baat bi dafa xaw a yaatu nii yéen su la neexee nga wengal ko bii tam ku nekk lay xem sele mag xam yaram a xem ñëw yi xam nga day xew bi tam benn rek la te couleur bu rafet la yépp mbese riche yu rafet yu seer it's not any cheap mbese nekkut ganilaa waaye mbese yu seer yi la mita five hundred dollars yi yooyu noonu la because nit ñu bari dañ ko dee jënd sax di fen di ko woowee ganilaa bot man moom xam nga du si fen so <laughs> no point ngay fen nit loolu xàq la tamit nit ñi nañ xam lu ngay jaayee yeah pare xam na nit ñoo xam ne sax xàmmee nañ ko bu ganilaa bi ak bu nekkut ganilaa so soo fenalee gàcce la man business dina lu ma fen dama lay wax lu may jaay rek ak lu ma ko jëndee xaw ma amin lu may jaay lu muy lan la ba pare nag ma la lu ma koy jaay def na si man fa am lu may waa piis bii taxawal ma daa jig nag dafa bu rafet boo xam ne ñett rek laa si am ñeent la foog nag ndax xama juróom waaye ñaari dama ko bëgg a képp rob bi dañ ko ñëw ready made la mooy rob bi xew léegi dafa xoyof te nice te bàyyandiku soo ko solee baat bi moo nekk nii loxo yi moo nekk nii dafa yaatu ku nekk lay xem gis nga ko daf di yaatu ku benn side bi nii you know soo sexy nga sol sa taille musóoru dafa am musóor musóor gaa nekk nii soo yii nii three different color moo si nekk five la waaye ñaari man maa koy képp soo ñett ñett lay jaay three different color la so yooyu noonu rek la guys yu góor yi moom ñett la bëriwut am day xam ne benn mbasin bu papul foog naa xam ma da woon ko waaw foog naa gis ngeen ko already mooy mbasin bu papul bi soo noonu la yu góor moom ñett rek la nekk nii ñett la ndax ñaar xam mooy bu blue bi ak tubéyam ak bu brown bi ak tubéyam dañ leen ñaw daxumi ko gis nga donc mun a gis bu baax bëgguma koo firi waaye su ngeen ma contacter su ngeen bëggee naa leen ko woon boo dafa kenn ku téyewoon benn bi dinaa ko contact waxam soo yer noonu la guys yére yi daal mu ngi nii léegi-léegi la xag si dama doon def tiktok live sax pour wone ko far ni ñu xañaan ñu soxot ñu bon ñi <laughs> boole ma tiktok soo ni ñu reporté sa live vidéo bi melum ni youtube dañ ko dee lifin suspend soo léegi dañ ma suspend from live vidéo ba xaw ma kañ gannaaw suba yooyu so yeah nit ñi dañ dee soxor tiktok because ma tiktok bi mu ngi nekk di di naaw di lifé nit ñi di ko follow quickly quickly oh my god li mo xam naa dafay nekk ne su ma ko solee i dama sol lifé nu mu tudd uh, westré na te moom westré na xam naa ko waaye westré na rek laa bañ because lulu fay nekk di lipin suma kaw nii ah ok i guess it's not gonna do it all the time see It's so nice and beautiful. so yes suma tiktok brand ma fa bolé. so motax ma bàyyi live fo mané ma ñew fii nii vidéo def suma ndamba parce que amna yeen yéen yeen yéen xam na si yeen yokk top yéen a tiktok yeen a may top fi. so ba ngeen ñew fi rek di ngeen fi gis suma ndamba ba tay yëpp la so ya dafa am ni ñoo xam ne dañ xiñaan waaye dañ feebar <laughs> te dañuy son ci haduna because haduna bi lo def nit fay ñewat ci yow nit ñi koy wax dofuñ de dañ ko seetlu ba gis ko ba dund ko ñenn ñi mbala ñu seetlu ko study ko ba gis ko moo tax nga dégg borom xam-xam yi di ko wax ne nit xaduna bi loo def nit fay ñëwaat si yow loo soxote nit fay ñëwaat si yow dëpp la loo nit yow doo ko xam mbala boo ko xamee dina yàqu waaw kon nag man ku ma xañaane sama video yi may def di jaayantu di si dimbale Afrique di ci dimbale sama bopp suma ma ma def yeneen liggey yi bon yu nit ñi def fi di seen xaalis ma tok fi di gore man jaay mi sax duma koy def lu bari de xaaju ma def lu bari ma tambale te yagra naa musuma ko jël serious legui ni sa lay jema a commencé di ko jël li too serious hmm? waye nit ñi nga xane dañ hañana hañan ba toskare ñom duñ def dara mbala luñuy def bugun kenn def ko koku tamit mbala luñuy def luñuy def lu neex lu baax luñu xam lu neex pour ñom la bëgguñ kenn xam lu baax mbala ñu gis la ngay jaay rek ñu fogg na ngay haji màkka jaay mi ñu jëfuur nit ku nek ak sa wërsëgi àdduna la ken xamul la yalla di may bul gis nit muy jaay nga fa ne fay xaji màkka te yow ngay halaku déedéet jaay taxut a xaji màkka te nit lu muy jaay lu mu si xam yow man nga xam lu ko upp sa xol bi su baxé ta nga lijjanti mhm. nit kenn mënta jël sa wërsëgi nit waaye so gisee ni kuy jaay dara rek nga jëfuur di soxot wala nga gis ni kuy xam dara rek nga jëfuur yalla du may dara ba pare loo xam ne danga ko ñàq ba pare sa xol bi moo du happy parce que das mii sa xol bi dafa wicked te xol bu wicked du happy so ku ma boole ku continuer di ma boole ku ma boole bi yoon nii rek xaw ma kan la de boole ma ne suma vidéo bi man am doing violation sexual harassment violation se vidéo boo xam ne nga taxaw di biiree di ko jaay nii rek yaa ngi sol sa bu mm, mu mm, mm, jot loolu lu mu dee sexual harassment waaye xam nga foofu noonu bokkut ak YouTube moo tax may traité pour développer sama YouTube channel bi wax leen seen xarit yi yëpp yéen ñu may support wax leen seen xarit yi seen mbokk yi yëpp ku bugg mu ñëw si YouTube channel bii ma développe ko. YouTube channel bi su demee ba xam 1000 subscriber junni nit suñ ko commencé di topp danaa commencé di man a dem live fii defi def su ma wax yi yëpp yu gën a bëri yëpp fii laa koy defee waaw xam nga fii du wu golo ñëw boole rek ñu ñu tëj ko fii bokkut ak TikTok. waaye nag ko xam ne mu ma boole bi yoon pour ñu bañ report bañ bañ bañ dog sama live bi su fekkee si biir rek la xam danaa ko baal lu métti metti waaye su continuer di ma boole after this mbooleem ku ma boolee ti from tey baxal nu ma la ko àddina àllaaxira te yow lépp luy lijjanti si àddina yal na ko yàlla cancel lépp lu baax loo xam already yal na ko yàlla cancel àllaaxira yi danañ layoo waaw dengen ko ndax sama video xam ngeen ne nekkuma si def lu bon ma ngi def comédie di jang nit ñi lu baax ma xam lu ne di def comédie di jang nit ñi lu baax lu ma xam lu ne ta suma neexon neex def ko si video yi magam bop suma magam bop la ko wax ma ne la ma tay waaye dama dem moytu surtout self healing bi ma nek def ni mbolem lu baax lu ma xam dama dee ñëw séddoo ko nit ñi fu ne ma fa man nag internet bi kum neex nga hubisa sa internet solo la nga post suba bul post nga ne ngay def yefi nit defal sa yefi nit man time bu ma neex lay post ma moom suma internet maa mo suma vidéo su ma ma post fukki yon si bes ñaar fukki yon ci bes yoni ken neew ci wa lo may hañane post mi dina di di kon kay yow nga nafiq li nga wax ne kon ngay post ben yon wala ñaar wala yow do nekkoo di hendu si internet di melni ni kon lo naa la kon motax mo pas nakari la demal xendu si internet bi kenn moomu internet bi waaw nit ku nekk ni mu ñëwee si internet bi dafa wuuteeg moromam nit ku nekk jikkoom dafa wuuteeg moroomam internet bi du ne pour kenn ku ne def di same thing kenn kon kenn du ko seetaan ñi koy ñi moom plateforme yi ay YouTube ak TikTok yëpp ak internet bi sax ñi ko moom bëgguñ ko koy use tuuti ndax xam nañ soo ko usee tuuti kenn du kenn du ñëw ku koy use lu bari sax lañ bëgg seen seen yoon néew si so yow soo ko bëggut tu ku luuti keneen ku dul def loolu. kokkane hata hat lay pose waye man luma toppe di mahañane man lima go trou si life rek doyne may struggle ba tey di keeps ma dignity di fight everyday ma nge lan how to get better in life ku moy hañane fi di ma topp di ma teg bët yalla lo ma hiine lu bon yalla dabul ko ten time depp lëkku maa ko wax jëlee ko suma xol bu sedd waaw wow. té nak suma continuer commencé di ñaanal borom wax suma yaay muy ñaanal borom wax suma mag muy ñaanal borom suma mag nga xane wi taw man jaru wax sax xarama nopi ñun ñepp xam nañ ne ku nekk fi lo xam lu ne sa mbokk yi afrique surtout bo joggé ci famille bu ñak so xamé jamm ñu am jamm so xamé butut ñam butut du ñam butut di xagn gune yu ndaw yooyu tok sa ron mango ya hmm? Yalla na la yalla toskare yow it bala yalla dee yàlla nga tok bay wax nan ray len ma ta do meuna de te du soxor rek la kuma bolé ti fim ne na ma ne munti bolé ku ne mu ma ba fi di ma yundu tek ma bët dana kol suma yaay kol suma mak ñaar yi suma len kolé wax len ko sutu suma mak nu man si julli ko nga xane wula, wula du toñ ken du wax julli rek ak muñ te lu ma sa japp diko ñaan nak du ko ba fek la muy ñaan xam bu set dana ko ñaata waxtu du ko raw su ko waxé ne ko fa xam ñu ma di ma sonal di ma report pour ñu cancel li may def su commencé di leen ñaan yàlla ak mari ma di leen ñaan yalla suma ma ci si si sax léegi tey ngeen ngeen gis ko te du ngeen di jaay saxor rek ay ca anyway guys I'm so sorry ne ma nga wara wax li yëpp ngeen dégg ko <laughs> but yeah I'm really serious about this because suma tok TikTok bi dafa commencé di blow up ñaari wër ma fa commencé léegi te upp na 50000 léegi tay mu wutali hundred thousand moo tax nit ñi rakka ju ni dëmm yu jëfuur xam na nit ñi bari ñoo xane mënu xam dara ah soxot gee tax am na soxot motax just because of effing followers followers yo duñ la may dara duñ la fay dara man sa ma ngi wax ci tiktok live video ñaari yoon ni xawma ñetti yoon ñaari yoon moy stay time bi julli gni ma ngi kaf sax naan gaay jox leen ma salibu jox leen ma um, def leen ma cash app pour ngeen ndewenal ma ma wax leen suma cash app bi kenn faalewul ma sax kenn ndewenalul ma dara waaye xam naa ne ñu xañyaan ñu dëmm yi fa ñuy gis loolu rek foog ne nag ami Jobe ku dem nañ ko cash app wu may goo Amie koy commental naa ko ay like you di laugh di like di subscribe wu may goo Amie Jobe dina ñëw tekki yéen fañ leen di robi rek parce que Amie Jobe lu war a xam kenn nu si dara yow loo war a xam Amie Jobe mënu si dara waaye su Ami job jogé ni fa ci def dara pour yow doo ko xam Ami job moy toskare parce que bala yalla di bind Ami job féké huko ak yow li nga disaf à sa passé Ami job mënu ko cancel Ami job tam lu mu disaaf à sa passé yow mënu ko cancel man internet bi luma fi xam sax mako wara xam dé parce que man yag naa si internet bi di wax mou 5 years ta dama dé try deug la def na video yu mu war ta def waye bari wut dama dé try dé Politik sax mo ci duggé won ma gis né politique bi dafa bari xulo bari affaire ta nguur gi nek ko di def nu wara def nga nek di ko soppo di xulo ci la daw bay ko dama dé oytu lu yak communauté bi dé man lool mom i have to say so myself saka healing journey bi moy def ni suma yalla dimbalé yépp dina gëna ciñ té lu bax lu ma xam dama ko dé wax nit way ko xam né nga ma tek but nan ki dafa uppal ak ki sayone mu ci internet bé nangam ta sandane joy newusi hmm yow tukkul wuti koo xam ne du xataxat lay poos man xamee wu ma jëkkër xamee wu ma dara néewu ma fi di farantu xaw ma affaire ak góor ñi moo tax ma am time te boo commencé vidéo yi ak léegi xat yi dafa tombé nekkuma di liggéey far nag dama xale laa doon ñu xaw a mag plus ma tuxu soog a xam beneen liggéey booleeg létt yi parce que létt yi duy busy far nag corona bi ñëw almost ñaari xat léegi you see corona bi di si yéen nii lay commencé di calm down UK mu ngi commencé di ubbi tuuti. su xubbee dina commencé ha di def lenen su boba wala ma dem collège dem jangé ha gina develop myself for the next step way yow do ma control time bu may ñew si vidéo yi do ma fayal bill lu la sa lu ci nek sa problème rek moy na fekk ak xot lool mo si sa problème su dul lool di nga tukki wuti keneen ko xane hata les pouces man na defar community mo mu té lool loolu duma ko musa ba ñew fi di ngee nit yi buñ wax dara man lo xamne ni nii dafay community bi ma wax include lu ma dund man c'est bon ngeen ni mako xasse sax every dama len koy wax ne li ak li dund ko si community bi te baxul li ak li lay def ta xamna da ngeen mako xasse xasee dama ko day wax pour dimbalé community bi non la dee waxee yeneen yi yak community bi yëpp su fekkee nak may wax lo. xam daf la laal wala nga xañaa rek soxot la yalla yonentou ba yàlla nañu yàlla xatte si dara darajaay Rasulullah wala yéen ñi jël sama vidéo yi poos ko pour ñaawlante pour buli wala poos ko pour wut si dara hmm? yéen ñëpp surtout yéen ñi jël sama vidéo yi di ko poos di ma buli lépp lu ngeen ma bulee ak lépp xañaan bu ngeen ma xéene yàlla na leen ko yàlla yàlla na yàlla toon dëpp leen ko man mii it nu ma leen xéene lu bon yàlla na ko yàlla toon dëpp ma ko ndax wan suma gémmiñ gi rek moo bëri wax waaye man xéene fu ma kenn bon lo mo def dama la ko wax per mu jeex mom mu fon way pour xamee la xol di la gëstu di la yundu di la gëstu di la report di la jéem a mukk ma sagon ba jotee sax dama yofo non mu jeex waaye xamna ci si yéen xane ngeen hubi plateforme di bulli nit ñi di fa def video video xulo video saga yu nek ngeen def fa ak xam yoon ñoo xane ngi top nit ñi di leen monitor di leen iñaan mini ay dem yu jëfuur yalla dana leen toskaré nak ndax nit ñi momu lay nit ñi juru leen nit ñi waaw lu rela bu ko na wax guys I'm so sorry but dama war génné li suma xol li ko mo commencé tiktok ba tay nit ñangi melni dem fofu non ndax dama commencé tiktok bu commencé di nit ñi di ñew tër ngir suma faana faana yek suma different video yi ma def ak you know suma personality and stuff like this so mënuñ ko xandon soxot tak ta halka halaku motax parce que xamuñ sax ndam man dana xew suba am deet xamuñ ndax ñom ñi hañaan dana xew suba am deet haduna bi kenn momu ko jaru ngay hañaané nit kenn ku ne xamoo taay moom ndax liya si des am ndax liya si des xamoo dara kon nag lu des sa bopp nit whoever the hell you are soo ko deful danga torox de doomi jàmbur yi juróo leen moomoo leen wax ko nag maa ngay dem guys naa leen di beneen yoon kooku ne ngaa bugg a jënd namba baa ngi noonu nga contact ma xam naa ne julli gi just passé na waaye nag julli gaa ngi ñëwaat du yàgg wala just ku bugg a jënd yi rek julli or not you know So yeah yére yaa ngi nii bi moom laay kastee suma bos la moo tax ma sol ko man du may bëgg a sol yére yi may jaay bii suma bos la waaye xam na beneen bu mel nii mooy bu ma leen wanoon noonu waaye boobu noonu fii loxo yi dañ tuuti pour ku tuuti la ku selem soo nekkul ku selem nga ko yóbbu si yokkal ni yokkal la ko fii mu ngi am pii si biir ok guys ba beneen yoon jërë ngeen jëf ngeen take <laughs>